أحببت رب العالم مع والأمين وانقاد ذكر لك الكلم والجزاء ahousubillahi min asheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi leen nuyu kenn ku ci nekk sa ak sant di jiital ci nuyoo bi suñu sëriñ sëriñ Abdoulahat Mbàkke bi sëriñ Moustapha Massamba di ci teg soxna Asu Mbàkke waaw di leen woo ci suñu bis bi bis bu màgg bi maay waajal safar bi dix safar di leen ci woo samedi le cinq octobre waaw di ci woo mboolem daayira nekk ci Lombardia bi yëpp rawatina mbolem jiwli ñi nek ci lombard diab ak peda montana bi yep ñu ngi len ci woo bàyyiwuñu kenn waaw ah, ñew wajal bis ni amul ñu mom waaw ah, diko def na ah, ci wo mbokk julli ak mbokk yep dal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah alaykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu yep comme niko ko suñu jëwriñ waxee inshallah allah bis bi mu ngi don le 5 octobre 2019 ñu ngi koy def nak dekk bu ñu woyé Solaro Solaro mu ngi nek ci province Milano via San Francesco amna ben salle bu yatt bu ñu salle polyvalente euh inshallah fa lañ kay fa lañ kay defee programme bi nag ñu ñaan yalla fassiyene ko ubbi 10 heures manam 10 heures moom bu ñuy wax 10 heures euh wa bi bu motax ñu wax dépp kon képp ko xam ci bok nga ci daayira bi inshallah bëgg nañ 10 heures fekk la fa bu ko defé ñu mëna préparer li ñu wara préparer bu suñu gan ñu inshallah fekk ñun suñu lepp soti bu sédo wala euh, midi. dinañ ko ubbi ni ñu ko ubbee mooy nañ fa jàng kaamir maanaam euh, ba daanaka waxtu añ jot su waxtu añ jotee nag léegi bu añee pare dinañ def benn waxtaan hmm? maanaam 14 heures daal 14 heures 30 donc suñ ubbee kaamir bi 14 heures dinañ jàng ba 14 heures 30 ñu añ suñu añ ba pare nag nañ ubbi benn waxtaan waxtaan boobu nag dañ joxe benn thème parce que dañ ne léegi at bu nekk nañ benn thème boo xam si dañ ciy waxtaan su ko defee gën a yee ñi. ci mbirum sëñ Touba tam bi ñu jàppoon loolu nag mooy màggal gi ginnaaw mu ñuy waajal màggal gi moom moo ko waral euh, il faut tamit nit ñi xam lan moo màggal gi donc tam boobu ñu ngi ko dénk ku ñuy wax sëriñ Amsatu Jaxate bu soobee yàlla dinañ ci waxtaanal suñ demee ba 18 nag dinañ woo suñu yi ndax comme ni nga xam ne fii def tam suñu benn soxna boo xam ne si moo fi nekkoon wax na caara si la doon jàngal xale yi <coughs> ni ngi ko defee woon daaw bu soobee yàlla xale yi dinañ fa teew maanaam lañ soxna si jàng ren incha allah bu ñu ko tere bis booba bu ñu demee ba vingt heures nag dinañu jox euh, kuréel yi place bi maanaam ñu jàng fa ay xasaay dinañ fa jox def fa tamit rajas hmm, bu soobee yàlla bu ñu ba rajas bi jeex nag dinañ fa def ay ñaan euh, ba daal euh, waxtu wi jeex bu soobee yàlla di ci woo ñëpp nag di sant di gërëm bu baax a baax di jox kàdd gi soxna Astou Mbacke su ko defee moom it ñu leeral leen programme mu jigéen ñi lay tëdde jërë ngeen jëf. bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu waa daayira xidmatul xadim bu ca Zanu Maderno man soxna Astou Mbacke maa leen di nuyu di leen ziyaare di wax ci turu jigéen yi di daayira soxna jaara xanaa di soññee rek di soññ sama bopp di jiital sama bopp di ci teg sama mbokk yi ci sama ginnaaw di soññee pour waañ wi ñëpp teel a ñëw ñu teel a def liggéey bi ci jàmm ak salaam bu àjjuma daal bu soobee yàlla daayira soxna jaara bi bëgg nañ ñëpp teew ci ñu ngi ciy woo tamit daayira soxna jaara bu Milan te soxna joxu caam jiite ko te nga xam ne ñun ci ñoom lañu aju ñu ngi leen di woo ci liggéey bi di leen woo si màggal gi di ci woo tamit suñu mbokku tijaan yi nekk fii seen daayira ñu ngi leen di te soxna Ndey Yaasin Baar jiite ko di leen woo tamit ci waañ wi di woo seen jëwriñi waañ ñu koy wax soxna Dima Fall ñu ngi leen di woo ngeen ñëw jàpp ci liggéey bi ñu def ko ba mu sotti ci jàmm ak salaam. ñu ngi woon nag maa ngi woon nag sama mbokki jigéen yi nga xam ne ñoom laa bokkal daayira bi di daayira soxna jaara bi bu alxameseeg jàmm bu soobee yàlla ñun ñëpp nañ tëj suñuy kër ñëw ci saal bi di stelle ba liggéey bi jeex ba samedi ak jàmm bañ def liggéey bi ba mu mat Euh, diwoo woo tamit daayira soxna jaara yi nga xam ne ñi ngi ci Monsa Biryaan sa bi ñëpp ñu ngi leen ciy woo diwoo tamit soxna maam jaara femme honorable député ñu ngi ko ciy woo ci bis bi tamit di ci woo tamit soxna Xadi Sall Njaay ñu ngi koy woo moom tamit ci bis bi di ci woo soxna ay sa jigoo ñu ngi ciy woo daal bépp jullit bu nekk ci Monsa Biryaan sa bi ñu ngi la ciy woo ñu ngi ciy woo ñëpp te di ci xaar nag seen teewaay incha allahu rabbi jërë ngeen jëf waaw kon woote baa ngi noonu rek euh, di ci woo maanaam suñu mbokk jullit yi ñu bokkal barab bi rawatina suñu mbokk tijaan yi euh, te seen euh, ngi seen ngi sëriñ Sarr jiite leen ñu seen président daal ñu ngi ci woo ñëpp di ci woo mbooleem daayira yi nekk ci ci Lombardia bi dépp bàyyiwuñu kenn waaw ne ñëpp ñëw woo nañu ñëpp maanaam communication bi ku ko dégg rek moom mooy sa woote waaw ñu ci woo ñëpp léegi ñu bàyyi ne jox jox kàddu gu sëñ Ambay xam ne mooy jëwriñu tuut tànk yi mu koy mu soññ tuut tànk yi jërë ngeen jëf bismillahi rahmaani rahim auzu billahi mina naar seytaani rajim mbokki jullit yi mbokk taalibe yi ci ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha xalifa général des mourides ñu ngi ñaan baax suñu borom guddal fanam te wéral cëram ba li mu naanal Seexuna Ahmadul Xadim lépp mu def ko li néegal bis boo xam ne amuñu lu dul moom muy bisu premier safar gi nga xam ne Sëriñ Tuubaa moo ñu ko jagleel boppam muy troisième édition di ci woo bépp mbokkum jullit bu nekk ci Italie rawatina Lombardia bi di ci woo baax suñu mbokk tànk yi ñun waa daayira Casano Moderno Xidmatul Xadiim bis bi nga xam ne amuñu lu moom ñu bëgg képp koo xam ne suñu mbégte mooy sa mbégte ñu ngi lay woo di sàkku nga teew suñu bis bi ndax bis bii kat daf ñoo ñor lool ndax Sëriñ Tuubaa suñu yaakaar day amul ci àdduna benn bis bu mu mës wax ne nañ ko ci sant la yàlla loolu bis bii mu dëgg man muy bisub 18 safar kon ñu ñaan mbokku taalibe yëpp na tuut tànk yi dinañ ko sonn dinañ ci xaar di ñaan képp koo xam ne teg nga fa sa tànk Sëriñ Tuubaa lépp lu séddale yàlla bu la ci ëppale dinañ ko bu baax a baax a baax te dinañ ci xaar yéen ñëpp huit heures ci dana fekk programme bi tàmbali ñun tuut tànk danañ fa nekk di ci woo jëwriñ Abdou Thiam mi nga xam ne mooy jëwriñ wàññi Touba Milan di ci woo waa Monza di ci woo waa Como di ci woo waa Varedo di ci woo ñëpp di leen ci xaar bu baax a baax a baax a baax a baax di ñaan daal képp koo xam ne teg nga fa sa tànk Serigne Touba li muy séddal yàlla boo ci kenn ëppale di leen siyaar bu baax a baax di wàcce suñu kàddu foofu.